bakkan rot na ci ca Cap Skirring koo xam ni kii dañu tiire woon bal neen ci kawam man gis naa benn vidéo ku tëdd deret jay wal xaw ma nag ndax loolu ñu wax dëgg la waaye nee ñu mujj na faatu mm, muy ay xew-xew yoo xam ni gis ngeen ko ca Touba démb gis ngeen ko ca Tiwaawan lu ñu wane ci internet Jurbel ma nga yëngu cees mi ngi yëngu Touba noonu Njaasaan ñi ngi yëngal kon ñëpp ci réew mi gis nañu yooyu nga xam ne mi ngi xew te lan la ay mouvement d'humeur la tudd mooy ay nit ñoo xam ne ñi dañuy dem ba sës ci benn mbir tàmbali di wane seen bopp li ko indi mooy ay nit ñoo xam ne ñi la nga xam ne moom lañ doon dundee dangaa dox sa digganteeg ñoom jotatuñ ci ndax ñi ci ëpp kat defe naa ne mooy chauffeur yi nga xam ni ñoom ñoo ñekk ci ay situation waa Cap Skirring ñoom ndox mi ñuy naan dong la ñuy laaj defe naa ne ba coow loolu jur jur ko milliards yi ñu fi waxoon tonu ceeb yi nga xam ni moom la président de la république taxaw ca kanamam foto fotowu donte loolu comp la ci li nga xam ne moom la réew mi soxla waaw loola anamu booba ba léegi dégg ngeen ministre bi nga xam ni moom la dénk séddale gi nee na am nañ ci ay jafe-jafe yan jafe-jafe ngeen dégg ci coow lu rëy dégg ci yeneen ci ay ci ci ci camion yi nga xam ni ñoom ñoo ko war a yóbbu loola fi mu ne nii ba tey waxaguñ ci lenn lu leer nga xam ni néew na wala bokk sañ naa ko wax ni benn citoyen du la ne diri naa sama saakub ceeb dugal sama biir kër waaye nit ki boo koy jox ay fukki kilo ceeb juróomi litre diwlin yooyu kenn xamul lan lay nuru cim réew nguur nag bu fekkee ne day dem bay jànkonteeg nag peuple buy yëngatu pour lan parce que dañ leen xañ seen ya àq ak seen yelleef loolu déjà néew dooleeg nguur lay daal di doon ñu tëbee ci loolu ñuy wax ci waxu dellu ci école yi nit ñi di wax naan leen mënta nekk mënta nekk nit ñuy wax di leen wax xalaat di leen wax yeneen feem di leen wax ay pexe ñu jël yooyu yépp xëpp ci suuf nekk ci li leen nekk moom mi nga xam ne mooy njiitu réew mi di déglu ay nit ñoo xam ni ñii ngeen baal ma ci kàddu yi tekkiwuñu dara seeni intérêt dong la ñuy lijjanti ñee ngi wut ay poste ñee ngi wut lu leen avancé di wax loo xam ne bokkul ak li nekk ci terrain bi réalité yi ay ay nit ñoo xam ne wu ñu sax dossier retour école bi loolu mu leen di déglu loolu mooy pouvoir boo xam ne bi dafay tàmbalee di néew doole. lii nga xam ne moom la Machiavel doon wax un pouvoir inefficace ne peut pas se vain un dirigeant inefficace ne peut mu se maintenir au pouvoir son autorité sera vaincue par différents pouvoir antagonistes loolu mooy waxi Euh, euh, euh, Nicolas Machiavel nee na ngu njiit loo xam ne lii dafa ñàkk kàttan ñàkk yonjox nee na mënta sax ci pouvoir ndax dafa am autorité maanaam sañ-sañam ak kaddoom day dem ba mujj yeneeni sañ-sañ ak yeneeni kàddu ñoo koy ëpp doole. loolu mooy ajjuma jooju ngeen fi déggoon ñu ne dañuy julli ji par force dañuy julli ji par force mu mel na ku leen ne yalax yalaxuk mënalatuma leen dara li ko indi mooy moom moo njëkk a saxal deux poids deux mesures ñii mu bàyyi leen ñu julli ña ca des mu tere leen loola di dem ba ña ca des fippu réew ku koy indi ci lii yow xam nga ne jaarale woo ko ci yoon wi mu war a war a jaar citoyen yi nag ñoom xamuñu ni ndeke yoo lii ñuy tuddee nguur du nguur baatu mbindaan boobu ñuy wax ñoom dëgg-dëgg moom lañu ndax yow yaa leen bëgg liggéeyloo jël ay ñaq yi nga xam ne ñoo jóge ci sa wërsëg dajalaatu ko dajalaatu ko ba mu duun lool ñu jox leen ko fas luy fas yéene leen liggéeyloo am yu ñu leen sant ca ñàkk woowu ne leen defar leen ñu ay tëli defar leen ñu ay école defar leen ñu ay hôpital sa wutal leen ñu sapeur pompier wutal leen ñu ay euh, euh, euh, lu ñu aar loolu lépp ngeen jox leen ko pour ñu defar ko ñoom ñu ne déedéet jox leen ñu rek ñu dajale ñun di ko siime suñu cere moom ñàkku baadolo nee ñu mooy siiñ cere buur nga xam ni yow da ngay àgg ba ci gëm ne lii ñu yor ñoom ñoo ko moom luñ la defal nga naan merci merci la gëllawaar doon wax merci merci merci mais nit ki boo àggee ba ci sa ñaq wi nga dajale jox ko nit gëmatuloo ne loola lu la lew la bu yëkkatee saaku ceeb may la nga sant ko bu jëlee cinq mille francs jox la nga woteel ko mais yow say wax jaratu wax jaratu la wax parce que nag am na loo xam ne lii bokkul ci niteeg doomu aadama droit yi nga am yelleef yi nga am soo demee ba nga xam ne yow xamatuloo ko encore musiba naaru laay la te nag ñoom ñi nga xam ne ñoom nga dénk ñoom am na jëf ak wax yu ñuy jëf yoo xam ni da ngay xam ne kii wan na leen ne mënatul ndax boo ko nee masalan tabaxal ma ay hôpital tabaxal ma ay école defal ma ay université loola defu ko ba moom su feebaree faju ji ci beneen hôpital bu ne ci bitim réew ak frais ya mu àndal bu doomam feebaree mu faju ko ca bu jabaram feebaree mu fari faju ko ca ñoom ci seen biir ku feebar ñu yóbbu la fa nga faju kon kooku wan na la ne la moom li ko santoon mënu ko école yi yañu fi nekkoon yu fi tubaab yi bàyyi woon ca indépendance ñoom ñépp raaf nañu ba ràpp di màbb di daanu yeneen yi ci des amuñu dara lu tax ñu koy mën a tudde école abri provisoire xant xontaan yooyu ngay gis ñu koy def ci ginnaaw école bi ne tudde ko classe kon kooku won na la ne le moom loolu nga ko santoon mënu ko defu ko waaw ku mel noonu nag lan moo la ca war dangoo war a nangu li nga ko joxoon ndax nee na la moom mënul ndax seeni doom ña ngay jàng ci école tubaab ya seeni doom ña ngay jàng ci lycée tubaab ya seen ñoom bu ñu feebaree faju ji kon wër ngeen xam ne ñi li ngeen leen santoon jaaduwul demul bay jaadu defuñu liñ leen santoon ci li nga xam ne moom ngeen leen joxoon ci seenu ñaq dajale ko jox leen ko ni leen defal leen na ko ci waaye nag loolu lu normal réew moo xam ne mii nit ñi duñu jëfandikoo seen xel réew moo xam ne nit ñi duñu jëfandikoo seen xel mooy ñoo xam ne ñi loo leen mosal mu doy leen di dund dund baadoolo nga xam ne li ngay lijjanti mooy lu ma lekk lu ma naan te doo ko lijjantee lijjanti ngor loolo su amee day normal waaye dina normal tam ci réew moo xam ne mii bu Senghor dellu si waatoon danaan lii lu mu doon ay nit ñoo xam ne ñi kenn xamul façon nit yan la ñu leen di def ay ministre ay directeur ay këfin pour lan parce que ba ñuy politique yaa ñoo ba ngay politique ñoo la jàppale loolu moo fi nekk kenn ci ñi nga xam ne ñoo nekk ci nguur yi daanaka amul mérité wul place ba nga ko jox du ci diplôme du ci jikko du ci juddu du ci xam-xam du ci dara ci lu war a tax moo tax kon bërëb dafa ñuul moo fay ñan bu ko defee daal mbokk yi ñu delluwaat yeewu gën a yeewoowaat daal te xam ne ñun ñii ñoo moom suñu yëf ñii ñu ko dénk bu fekkee ne mënuñu cee defal li ñu bëgg ñu delloo ñu ko ci njëkk ak yiw ak teraanga asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.